député euh, maman Hélène yow laay njëkkee bi question ndax bu ñu dindee lii du malaanu kilaay bu Ousmane Sonko ndax li ni mel narul gàkk indil ay gàkk-gàkkam ci carrière politique am waaw euh, dindi euh, immunité parlementaire mu ngi bëgg nekk ci banalité maanaam loo xam ne daawuñ ko daan dégg waaye depuis en tout cas douzième législature mu ngi commencé nekk banalité man loolu laa ci njëkk a defal constat parce que douzième législature dindi nañ fa immunité parlementaire u ñeenti député muy Ousmane Ngom muy balde ak Oumar Sarr ñoom lañ njëkk dindi seen immunité parlementaire teg ci Barthélémy Diaz ba mu fippoo jëlee génn bureau assemblée commencé di attaqué ci affaire xalifa Sall bi ñu ni dañuy ñu génneewaat procès njaga Diouf ba nga xam ne temps ab lay Wade la woon bi ñuy toogee treizième ba léegi bii moo nar a nekk seen deuxième ndax dindi nañ bu xalifa Sall ñu ngi nii di yoot bu Ousmane Sonko maanaam loo xam ne daf daa nekk exception mu ngi bëgg nekk ci banalité te su ma jàngatee ñooñu ñëpp ñu dindi seen immunité parlementaire amu ci kenn koo xam ne nekk nga ci majorité bi ñu dindi sa immunité parlementaire ay opposant kese la ñuy dindi seen immunité parlementaire te donc liy wone mooy souvent ay tension politique mooy ne soubassement wu dindi immunité parlementaire boobu dina am conséquence mhm. parce que su ngeen fàttalikoo Cheikh Bamba Dièye wax na fi ay juge wax yu tar ñu yóbbu ko olu ko dik mu ni du ma dem te kenn mënu ko jëli ndax immunité parlementaire am mhm. Sonko nag bu ñu dindee basam ah lu muy waxati dana ko seet ñoo ñu ma leen limal yëpp ba ñu dindee seen immunité parlementaire Euh, man de ci lima ma seetlu seen taxawaay ci opposition bi ci ñenn ñi wa euh, seddoon na ndax ñu ngay seet lu ñuy wax ndax bu ñu xasee ba dindi sa immunité parlementaire ça veut dire que saa yu leen neexee ndax immunité parlementaire dindi wuñ ko ci benn affaire boo xam ne mooy yëfu 94 milliards mais dañ koy dindi xaw ci texte yi waxuñu ne suñ paree ci loola da nga koy amaat. mais est-ce que moom moo porté plainte aussi. bala waaw maa ngi ciy ñëw mais damay wax conséquences yi rek. Mhm. mooy. sa malaanu kiirlaay boobu wee aajiwul ci affaire boobu rek waaye fii ba législature bi di jeex foog naa bu ñu la ko delloowul malaan bi euh, euh, lu loo looy waxati di nga ko seet ndax su dul loolu dañ oote bi day yomb donc dina am conséquence effectivement sur le plan politique te dina am conséquence ni mu amee ci ñeneen ñëpp parce que ñi dindi seeni i malaan Ousmane Ngom bañ dindee malaanu ab Barle bañ dindee Basam ay Oumar Sarr mais à la ñu mujj ils sont allés à Canossa comme disent tubaab bref mais du loo xam ne aussi lu ñu mën a wax ne waruta am. ndax ndax moom ci boppam. parce que ñu gis que ki ñu ko sekkal euh, président daal dina tekki ndombal tànkam kii di Mamour. waaw mais mais xam nga même moom moom moo porté plainte. xam nga man du ma dem porté plainte ñu war maa àtte ji. te nee nañ malaan bii ma muuroo bu ñu ko dindiwul duma mën a dem ci juge bi. Mm-hmm. may lànk ne. kenn du dindi sama malaan xam nga kon da ngay waroo ak sa démarche bi nga xam ne mooy plainte bi nga porté mais soo xoolee sax moom ci boppam teg na jéego yoo xam ne mën naa ne loolu dootul problème si moom ndax dem na wuy ji doyen des juges à la veille de du du du de l'examen du rapport rapport u commission d'enquête parlementaire bi te loolu mais su fekkoon ne malaanu kiirlaayam bu mayoon na ko bu ko neexee du yegg ci doyen des juges mais comme moom moo sàkku loolu dem na wuy ji leen moom moo porté plainte ah su ñuy dindi malaanam mm. xalaat naa ne yuuxu waru fa am coow waru ci am mm-hmm. parce que pour ñu mën a atte dossier bi nga xam ne tey ñun ñëpp mm-hmm. li ñuy xaar mooy ñuy sas yoon ne ko nag yi ñu gis nii ci affaire Karim Wade ba mu ñuy rattraper sur le plan international gis ko aussi ci mbirum xalifa Sall mm. ba mu rattraper ñu aussi si commission wu euh, ci CEDEAO mais nañu nañu fexe nag ba bii yoon mu jaar yoon vraiment na jaar yoon mu bañ a nekk un instrument de liquidation d'un adversaire politique mm. parce que nag bu boobaa danay jamais deux cent trois Macky Sall nag amagum na ñaar yu fës a fës a fës. <laughs> ah nañu xaar nañu xaw ma nag ndax dina ñetteel baara yéen ngoog daal. professeur ñu gis ni euh, bile coow ba léegi noppeegul ginnaaw ga ñu créé lii di benn commission d' enquête parlementaire ñu woo ñëpp 31 personnes ñu ñëw ba mu des Ousmane Sonko ginnaaw ga nag ñu gis moom mu porté plainte kii di Mamour Diallo encore moom tamit euh, par le biais de Maître El Hadji Diouf son avocat porté plainte naka nga gisee yile plainte ku nekk di bëgg a duj baaraam sa morom jëm ci 94 milliards ba léegi. d' abord sur affaire euh, li ñuy dindee immunité parlementaire pour wane toutes les conséquences parce que affaiblissement wu opposition dafay affaiblir le jeu démocratique euh, su fekkee ni ñi nga xam ne ñoo doon wax euh, di porter contradiction parce que li mu wax ñoo ñëpp dañu mujj noppi mais le cas de Sonko c' est un phénomène nouveau parce que pour la première fois moom moo nekk à l'initiative de ça. Donc, c'est dans l'ordre naturel des <coughs> choses. Euh, il a saisi la justice. dañuy bàyyi justice def liggéeyam et lui-même si si attan moom moo ko sàkku sax laa bëgg a wax je crois que wax na ko quelque part bu waree ñu dindi euh, euh, immunité parlementaire moom si boppam dana demandé dindi immunité parlementaire donc ki bëgg demal boppam justice kon ça va être un phénomène nouveau parce que opposition yi ñu fi daan jàpp yooyu yëpp finalement xëy na amoon nañ dossier yoo xam ne noppi moo leen gënal wala comme tu dis ils sont allés à Canossa ñu mujj dem rejoindre ci le cas de Sonko est un cas tout à fait différent parce que moom il s'est mis dans l'opposition parce que c'est lui seul l'opposition aujourd'hui au Sénégal dans l'opposition systématique fu problème ame mu ne moo koy tax moo koy wax xëy na tamit fi mu ko teg teg na ko fu ko wóor ba tax moom mu am euh, jël initiative boppam bëgg sax ñu teggi malaanu kiir laay maintenant problème mu 94 milliards yi peu importe ko am dëgg parce que pour le moment xamaguñu ku am dëgg mais ak ku ci mënti am dëgg ça va être utile au Sénégal parce que problème bi moo di euh, dossier bi wane na pour une fois ni ñuy caax-caaxee alalu askan bi di leen si boddi di jaar ci seen kaw te administration bi di ko def je crois que buñ si jógee war nañu dem analyser xoolaat structure yi ñu fi mettre en place nga xam ne c'est le modèle colonial moo ko fi bàyyi dañu jël ay nit yi nga xam ne ñoo nekk ci hiérarchie bi si kaw boo te du rek bu douane impôt ñi di am ay indemnité yoo xam ne euh, euh, jéggi na dayo par rapport au reste de la population ñii bu ñu joxee suuf ñoom ci seen bopp am nañ ci droit ay terrain donc des possibilités ay nit di enrichir sur le dos de l'ensemble des Sénégalais je crois que leçon bi ñu ci tiré ak fu dëgg bi mën ci féete moo di sulli na benn mboot boo xam ne tey war nañ jóg saytuwaat ko ba tëggaat une boo xam ne du jël ay nit rek di leen beral loxo ci kaw ñeneen ñi ak di dund si kaw sénégal yi parce que finalement loolu lañ fi gis parce que xëy suba rek bëgg fi même bu fekkee benn milliard la rek sax dafa jaaduwul wax mag nanga milliard yi nga xam ni moom ni mu koy expliquer en tout cas am na cohérence léegi dañuy xaar ba xam justice lan la fa wax mais euh, pour la première fois il faut dire que euh, euh situation bi inversé wu na du ay nit ñoo xam ne dañu bokk ci pouvoir bi di wut fu ñu nëbbatu mais nit la koo xam ni moom moo am responsabilité am assumer li mu def et je crois que aussi c'est une autre façon euh, de de s'opposer aujourd'hui au Sénégal bi débuté na ko est-ce que dina am dara ci kanamu àttekat yi. bon loolu c'est des questions de droit donc en ce moment là il faut laisser xool lan la justice wax waaw.